jërë ngeen jëf maa ngi nuyu ñëpp wax ji nag du gudd tey dama am gàcce en tant que Dakarois parce que dama jàpp nii ci mair lamin Gueye jaar ci Mamadou Diop Pape Diop xalifa Sall ba Soham maa ngi doog a gis tey mair bu toroxal waa Ndakaaru ci comportement am muy lu ñaaw lool tey képp kuy Dakarois fi nga tëdd war nga am lu la naqari lool wala nga rëccu la nga voté loon nii loolu mooy bi ci njëkk ñaareel bi tey. direction des élections bii tey ñuy xoqatal di ko saaga may rappeler ni ba mu nekkee ci kaso bi direction des élections bi moo téye woon élection législative bi ko mag Macky defee député pour mu génn ma koy fàttali ma koy fàttali tamit direction des élections bii tey ak lañ naan fichier bi wóoluwuñ ko moo organiser élection yi ba ñu am ci ndam naan fichier bi baax na kon tey bu neexee nga ni baax na bu naqaree nga ne du noonu doolee koy faj loolu nag daf fiy jeex sama wax du bari de mars bii passé li fi amoon muy accident ñu foog ne yoonu tool dafay dakk waxuma waxi police dama ni li ma dul d'accord nag mooy buñ naan monsieur le maire ci mission mairie bi nga yor la mais bu fekkee ni gangster la dañuy dindi turu monsieur le maire bi parce que ñun ba ñu nee ñoo perturbé maison du parti ak Tanor mais dañu ni trouble à l'ordre public association de malfaiteurs teg ñu ci yoon kon keneen ku ko def dañ koo war a teg ci yoon loolu mbirum yoon la bi yoon weesoo nag muy mbirum ñun waa Sénégal ak waa Ndakaaru dëkk bi nag ku ko bëgg doo ko yàq duñu liggéey dëkk bi président def fi li mu def nga foog ñi léegi lu la neex rek da ngay napp ñu ni jaay leen doole dama nii bu police defee liggéeyam ñun militants yi ku jaarlu yoon dinañ la teg ci yoon wasalaam